mën a wax ci mbir mi mooy tey bis bu doy waar la bis bu lëndëm la bis bu ñaaw la bu nu dund ci suñu démocratie gis ngeen débat yi ni mu amee au niveau de l'Assemblée nationale moo tax mën ñu woon sax continuer ni ko bëggee débat yi ndaxte sénégalais yi xam nañu li fi xew yëpp kenn respecté wul ak ak al ak yelleefu Ousmane Sonko kenn respecté wul règlement intérieur Assemblée nationale mais day dugg ci projet wu président Macky Sall nga xam lenn rek moo ko tax a jóg nu mu fexee ba nasaxal opposition bi mais dama koy fàttali ni gisul bu baax ñan ñooy opposition ndaxte Sénégal presque 17 millions la te 2 millions 500 ñoo voté pour moom boo ci soustrayé boo dindee loolu ci 17 million yi potentiel bi day doon 14 millions 500 te 14 millions 500 yooyu réponse yi ñuy xaar. mooy ñu régler problème économique bi régler problème social régle problème sanitaire bi régler nga xam ni moom la ñuy jànkonteel guddi ak bëccëg mais xaaruñu ay tey jii nii ñuy nasaxalee opposition bi ñuy nasaxalee démocratie bi ñuy nasaxalee liberté lu mën a ñàkk la ndaxte Sénégal bi mu amee indépendance ak léegi yàgg na jéego yuñ ci jot a def pour suñu démocratie mën consolider wu jéego yu am solo la mais il faut ma fàttali leen que tey assemblée nationale la nekk pour ngeen mën ko fàttaliku ndaxte fii la confrontation idée waroon am fii la débat libre waroon amee fii la ku nekk waroon mën a jaabante nu mu la neexee te dara du la ci fekk mais sunu travaux yooyu ñoo ngi koy def ñu bunkeriser ñu. force de l'ordre yi taxaw ñëpp taxaw mu lay fàttali ay pas yi ay nit moso def bi ñuy dem ci dictature loolu ñu war ko rappeler et. sone la mobilisation. nga jàpp ni. la mobilisation ci sénégalais yëpp ku nekk foo mën a ne nga fexe ba def mbir mi sa mbir xam ni tu es menacé parce que démocratie bu menacé woo liberté menacé wu kenn nekkatul ci jàmm na ku nekk jóg def combat bi sa combat donc xeex pour sunu démocratie am jàmm la xeex ba képp ki nga xam ni tey opposition nga nekk nga mën conserver sa dignité et pas que ñu lay exposé ci complot vraiment yu ñàkk fayda yi ci kilifa di nga xam ne ak monde fi mu toll préoccupation au niveau du monde fi ñu toll amoo leneen looy def dul xool nooy suivre say opposants di jéem di comploter contre ñoom loolu ñu koy naqarlu di ko ñaaw di leen fàttali nag que li ma waxoon kë dina ñëw ci fan yi wax ak sénégalais yi lu ma nar a def la bu sunu borom mayee ñu gudd fan ak wér te bu boobaa daa ngeen xam bu baax a baax a baax